Déthié yaa jiite ambassadeur de la paix yu Sénégal muy ndawal jàmm yi nga jiite itam parti visa les citoyens tàmbali woon fii itam lii di opération Corona du jaar si man ñu ngi lay nuyu am mbégte dalal ci matinal Rewmi FM tey. ñu ngi lay fay euh, yaay Fatou di kontaan ci dalal bi. Mm-hmm. Euh, di leen ñaanal jàmm. jërëjëf ñu lay ñaanal jàmm yow itam ndawal jàmm li ambassadeur de la paix euh, justement ambassadeur yooyu ngeen doon euh, tey lan ngeen yaakaar ne mën ngeen ko def ci fi réew mi toll ñëpp a ngi tiit ndax mbiram Ousmane Sonko mii nga xam ni tàmbali naa daal di jël yeneen ni dayoo yoo xam ni mi ngi mel ni luy bëgg a yëngal réew mi. waaw lu dul jàmm rek jàmm ko ken te lii am melul ne li ñuy jëf ci mu jëm ci jàmm te kenn ku ne da nga war a woote war a jëf war a jàngale jàmm alors donc euh, situation bi tiitaange mën naa am mais ñun de tiituñu. Hmm. te jàpp nañ ne waruñoo war a mën a tiit. ah lu tax tiitu leen. Euh, ah waaw non xam nga dañoo nekk ci réew yoon. Hmm. réewu yoon nag bon bu fekkee ne nit nee na tooñ na ko mu tuumaal nit. donc ñi ko war a leeral war nañ koo leeral. Mm. bu fekkee ne kooku tuuma bu tegul fenn la. Mm. moom it mu tourné ñu daan kooku nga xam ne ne sonal na nit ñi lu nga xam ne ne wax dëgg yàlla euh, du du noonu bu dee tamit loolu ñu ko tuumaal am na. boo boobaa it ñoom ñu jël décision bi nga xam ne moom la ñu moom la ñu war a jël. waaw lii ñuul ci soow mi nag mooy yëf yi neenu dafa rax politique te itam gis nañu ni ci euh, kilifa yi wàllu yoon taxawee ak Ousmane Sonko kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko ne du wuy ji yoon ñuy xalaat foofa ne daanu ko jëli te bu nu koy jëli jàmm mën na faa bañ a xew de. waaw xam nga dafa am euh, ay xeetu wax ak mm. xeetu doxalin yoo xam ne boo koy def mm. euh, mënoo indi lu dul ay te ay du yem ci bopp boromam. li Ousmane Sonko def démb ci la bokk. waaw waxin gi mu waxee. Mm. ah maa ngi la koy wax sànq ne la noonu laa gis président waxee ko ci affaire vaccin yi. te loolu it du yoon dinañ ci dellu si. Mm-hmm. mais xam nga tey am na loo xam ne ay mortal komba ak yu nga xam ne maanaam yaa ngi woon nit ñi ci wàllu ay ah. donc loolu jàpp naan du yoon xam nga tey euh, hmm. réewu yoon la assemblée nationale bii li ñuy def yoon laam du yoon sénégalais ñoo ne man mi dox ak yéen candidat laa woon hmm. da yoron jiite woon sama liste hmm. mais sénégalais ñoo ne yéen ñii ñu tànn ngeen toog fii yéen a ñu doy liggéeyal leen ñu kon ñooñu nañ leen bàyyi ñu liggéey bu ko defee bu ñuy def bu dee seen liggéey baaxul bu beree na tee ñu seet ñu tànn ñoo xam ne mate nañ ko mën nañ ko ñu teg leen fa. mais tant que jiini jii nii maanaam sénégalais yee ngi wax nañu fi teg ñii donc lii moo maanaam maintenant. xam nga dafa am loo xam ne wàllu cokkaas la. Hmm. cokkaas nag ki koy def di bëgg di bëgg indi xeex euh, du du du jaaduwul ni mu waxee. ak jëf ji nga xam ne noonu la jëfee woon ca université ba nga xam ne ne xale yi naan ay boko ko laalee yeneen xale yi nga xam ne ñoo féetewoo nguur gi tamit daal di taxaw ne ñoom tamit li doot fi amati bu ko defee léegi nag jàmmaarloo mën a am deret mën fee tuuru ñu daal dugg ci lu nga xam ne doo xam ci fan lay fan lay fan lay yem bañ a yegg ci loola yéen lan ngeen nar def wala lan ngeen yaakaar ne mën ngeen ko def ngir jàmm dellu si ñun ñun ci wàllu ambassadeur de paix yi mhm. ñu ngi ci Euh, tey jii ku mel ni professeur Omar Ndongo mi jiite l'académie des professeurs pour la paix mondiale euh, ñi jiite jigéen ñi ci wàllu famille kenn ku ne ci ñi nga gën a miin yaa ngi dem ci ñoom ak ñi nga mën a mën a waxanteel ndax ñun maanaam euh, organisation bi amul mandat. Mm. pour mën a mën a ji ay négociation mm. ndax xam nga ci temps normal. Mm-hmm. da ngay mën a waxtaan mais ci temps anormal. maanaam négociation la te négociation da ngay am mandat am ay garantie fii wala garantie fële pour mën a dem bu ko defee bu ñuy waxee li ñu lay wax le après ñu mën a am lu ñu tënk. waaw est-ce que bii mën koo respecté. est-ce que seen jéego yi ngeen di dox euh, melul ni bay wéy na mbuus ndax fi fi toll tey boo maywul dañu yëkkati immunité parlementaire bi ci kanam tuuti 11h lay doon la ca mën a topp itam euh, kenn xamagu ko waaye nit ñi tiit nañu ndax bay wéyul mbuus ba noppi. waaw mais xam nga ñun mosuñoo jóg ci di wax jàmm ak loolu ndax da gaañi li ngeen di wax nii bon ña nga cee waxal yaa ngi ci man mi am na ñu may waxtaanal. Mm. mais dañuy waxtaan léeg-léeg nit ki ne la noo da ngaa féetee fii wala la ndax kenn ku ne am na looy def ci sa wàllu liggéey. Mm-hmm. ci sa wàllu yëngatu ak sa wàllu politique. donc tey bu ñuy dox wàllu jàmm jàmm ja la ñuy wax mooy mi ngi teel ni violence yi université yooyu dox nañ ci ñu ngi ciy wax jàmm ba chaque fois yàlla ñu ciy defal sutura ñu ciy am ndam te du lu ñuy publicité mm-hmm. donc duñ ne béy wey na mbuus ndax jàmm moom allah kulli ba dernière seconde. Mhm. jàmm day am maintenant nag xam nga ñu dox jàmm bokkul ak négociation bul ma laal du ma la bu bul ma laal du la laal. Mhm. donc ñun bokkuñu bëgguñu li ñuy wax inflation verbale mooy maanaam menacer ak euh, ay mortal combat xam nga ay yu demee noonu. Mhm. doon na yoo xam ne ñun mënuñu ko mënuñu ko rafetlu. donc bu nit ñi bëggee jàmm dañuy jox jàmm dañuy jëfin jëfin yoo xam ne mën na jur jàmm ci ñëpp. Mhm. temps bi moo ñu dul may ñu dugg ci présentation bu yaatu yaatu ñee ñeel ambassadeur de la paix yi ngeen doon waaye ci tënk rek nga wax ñu euh, ñan na leen ngemb ak lanay seen taxawaay ci réew mi mel ni Sénégal ak àdduna bi. waaw organisation bi mi ngi nekk Nations Unies nekk fu ñuy wax conseil économique social euh, euh, conseil et social donc am fa statut spécial bu nga xamee ne maanaam ñu ñuy déglu lañu ci wàllu ci wàllu àdduna mm. donc euh, te jii ONU bii nga xam ne moo fi nekk ñu di ko war koo réformer mm. te jii projet fédération pour la paix universelle bi ñu nekk moom la ñu adopté pour mën a réformer mooy ñu indi une deux secondes chambre bu ñuy wax conseil interreligieux ndax àdduna bi fi mu toll daanaka xeex yeeg ay yi fi am yëpp ci wàllu diine te wàllu diine ak yooyu boo wàllu waasoog yooyu bo xasee ba am rek day doon loo xam ne du neex a fay mm. di jëf jàmm di dox jàmm di jëmale di dox li jëmale kanam nit ñi di dox solidarité di dimbalante. Mm-hmm. léegi nag loolu bu ñu la demee ba ràññee la ci dañ la naan yow de gis nañ sa liggéey rafetlu nañ ko kon nag jox nañ la. Euh, raaya ambassadeur de paix waaye nag ñu lay joxaat mission bi nga xam ne la nga doon jëf nga jëf ci lu ëpp la nga doon def hmm. loolay ambassadeur de paix bi donc ñu nit liggéey nañ ci liggéey bu am solo boo xam ne kii di professeur Amath Ndongo moo fi njëkk a nekk de paix gannaaw moom imam Assane Cissé yàlla na yàlla yeesal yërmande ci moom hmm. donc moom moo nekkoon juróom ñi nga xam ne moo doon représenté l'islam ci wàllu adduna bi ci mbir mi def ci liggéey bu am am solo hmm. donc di fàttali ne sommet mondial bi nga xam ne am na Afrique fii 2018 janvier 2018 ñun ñoo ko fi am ndax rafetlu nañu taxawaay ak liggéeyu sénégalais yi ak Sénégal. président Macky Sall jiite woon ko ca booba jamono alors ñu yegg si ci mbirum euh, vaccin bi kàddu yi ci njiitu réew mi yëkkati démb noo ko déggee yow mi euh, initié woon euh, opération Corona du jaar si man. waaw kàddu yi moom ñu ko rafet rafetlu. waaye ñu ngi jaajëfal président ci décision bi mu jël ba bokk ci réew yi njëkk a euh, xeex ba am vaccin bi ndax am na ñu bëri dañoo toog ne yaa ci di xaar ku leen dimbali mu ne don ñun Sénégal nañu jël ci sunu wàllu ñaq nañ jël sunu wàllu doole def ko ci donc loolu lu ñuy lu ñuy lu ñuy rafetlu la maintenant nag xam nga man damay fàttali ne rek Euh, lii ñu taxawal euh, corona du jaar ci man mm. depuis juin ba moo wéree ci feebar bi gis la ci am mm. ci la ñu taxaw di ci xeex li ñu njëkk a xeex mooy bodd gi nga xam ne amoon na fi te indiwoon problème yu bëri euh, rafetlu jaajëfal ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr mm. ak ñi ciy liggéey ñëpp wallahi ci li nga xam ne wax dëgg yàlla doxee nañ ko ba Sénégal dem ñu ne ko ràññee nañ ko ci Afrique ci ni mu koy xeexee ndam lim ci am ak ci àdduna bi mu doon ci ñaareel donc loolu nag moo bi ñu ne ci te wane ko fu dem nañu fu wax ko ba nit ñi dégluñu ñu déglu yi tamit vaccin bi liñ doon naan vaccin bii dañ ko war a conserver fu nga xam ne moins soixante dix degré mais ñu xam ne ne ñii ay poson la la ñu bëgg fi bëgg a te it am na ñu bëri ñoo xam ne dégagé woon nañu sa responsable te xam ne loolu amuñu ko mënuñu ko kon it léegi bu ñu demee dema dem ba tànn nag vaccin bu dëppook ñun li nga xam ne moom la ñu am ak moom la ñu mën kon loolu dafay dafay rafet di leen fàttali ne tey jii euh, OMS kii di président Madagascar ba ñu indee affaire euh, euh, Covid organique bi. Mm. donc ñëpp rafetlu ko ku ne gis ko dem na ba ci yàgg donc euh, am lu ko proposé ndax dafa am lu wax les les les industries pharmaceutiques ñooñu dafa am yu nga xam ne moom la def. Mm. donc yooyu ñuy def lii gaa ñi defoon arrangé wu leen donc ñoom it ñu daal di ne leen nañ leen def façon ci kii bi tooke ci affaire bi donc loolu taxoon président Madagascar bi retiré réewam kon loolu mi fi. maintenant nag am na yenn vaccin yoo xam ne ñun dalul suñu xel te tey jii bañ na vaccin yo ñëw na it danañu ñun suñu xel dana ci tey. waaye bii dal na seen xel Sinopharm bi fi ñëw. Sinovac bii vaccin bu dal xel la te nee nañu ñun la ñu tàmbale woon defoon ko danañu demaat Ndar danañu demaat Louga danañu demaat Thiès danañu demaat Kaolack ñu demaat Ziguinchor danañu demaat Louga fa ñu jaaroon yëpp danañ fa jaat danañ ko gën a yaatal ñu xam ne ne tey ndax ñun dañu ñaanoon nit ñi nañu def taxawaay sol seen masque yi raxas loxo yi pour que déggi wàññeeku dee gi nag wàññeekuwul comme nag wàññeekul yokk na ba tey jii ay fukk lu topp la ñuy wax par bis kon nag ñun Sénégal xamuñu loolu hmm. amul fi mu toll ni vaccin bi dong dong dong moo ci mën a génnee. te da gis ne kàddu président démb mën naa xajamal campagne bi wala mën naa tax ah, Sénégal yi gis seen bopp. waaw ndax nag président dañoo jël sunu alal jël sunu lépp ne ko dénk ko ko xool ne ko xoolal fi mu gënee ci ñun nga def ko fa. waa léegi nag bu ngeen la nee xoolal fi ñu defee ci ñun nga jël sunu alal jëndee ko vaccin pour mu jëriñ ñu nga ni bu ngeen vacciné wul dama koy jël maye ko loolu moom jàpp naa ne du du du du du cëram Euh, nit ñi bu dee xel yi jaxasoo na ba pare ci wàllu vaccin yi jiixi jaaxa am na man sama téléphone yi boo ci amee fukki appel juróom-ñaar yépp daanaka dañ may woo di ma laaj loolu ndax tey bañ demee garage Nioro ca bureau bureau ba fa nekk ca kii ñi ñi yore garage bi mais ay mag lañu ñu am soixante ans soixante dix ans ak loolu bañ waxtaanee ñu dañu ne nii nga waxtaanee ak ñun buñ ko wax buñ ñu ko xamalee woon nii kon ñun suñu taxawaay dana gën a mat. kon it loolu mu doon lu am solo mooy waxtaan bi des na deuxièmement it xam nga ba fi ay moyens amee ku ne dégg nga ñuy jaagaa jonge ku nekk di def ko genre retraite ñuy def la ñuy def léegi nag xaalis amul mais gëm bëri toog ñun nag depuis juin ba tey ñi ngi jàpp def ala accu bàyyiwuñu hmm. kon ñun bu ñu taxawee war nañu boole ñi nga xam ne wax dëgg yàlla mën nañ ko liggéey nañ ci ràññee nañ leen ci bu ko defee ñoo ñu dem gën a taxaw mën a waxtaan ak nit ñi ci tey bakkan mhm. ndax du doole du lenn nit ku xelam dalu da nga koy wax lu mu lu xelam mën a nangu bu ko defee mu mën a ñàkk xam nag dina tax nit ndax nit di nga jël sa doom mhm. n'est-ce ne ko bàyyi lii baaxul mhm. mu di ko def te pourtant di nga ko muñal kon nag président dafa war a gën a yaatal dënnam muñ ca loolu ñu xool ne campagne bi ñu war a def campagne bu am solo la ci nit ñu ko mat ñu mel ni imaam yi am na ci solo. Mhm. ñu mel ni ñun ñi liñ ci def am na ci solo. ak ñenn ñi ñu boole leen ci. Mhm. ñi mu daloon am nañ ci solo bu ko defee bu ñu demee waxtaan ak nit ñi dinañu comprendre dinañu ci ñun ñi wax yi ñun nañu ba pare di xaar mhm. mais comme nag amuñu comorbidité xëy na mën naa yéex a ñëw. voilà ñu jeexal dëcc ci benn simili rek euh, waxtu wi moo nu xoj lool euh, ay waxtaan amoon na ci wàllu politique yaa jiite parti Visa les citoyens euh, ci wàllu fichier bi audit bi ñu doon sàkku tàmbali na waaye élection locale yi ba tey kenn xamagul kañ la ndax sa xel dal na en tant que politique euh, ci audit bi nga xam ne tàmbali nañ ko ak am nga yaakaar ci local yi ñëw ñu amal ko waa gën a gaawee waaw Adja Fatou man xam nga ma bokkoon maa nekkoon kenn ci ñaar ñu doon représenté opposition bi si dialogue national bi amoon ak yi amoon audit fichier yi amoon yëpp donc tukki nañ ci dem nañ ci fu bari ci mbir mi kon xam nañu mbir mi mhm. mbir mi am actuellement ni audit la fichier bi ak évaluation processus électoral bi muy ñaar yu am solo yoo xam ne ne euh, dialogue national bi moo ko laajoon ñor koo doxal te waruñu ko parax paraxee dañ ko war a doxal ba mu mat ndax boo nee audit bi audit bi ba ñuy inscrire ba ñuy modifier ba ñuy rajee ba ñuy def recours ak ay ordonnance loolu lépp daf cee bokk te lenn lu ne point bu am solo la maintenant évaluation processus bi mi ngi tàmbale ci refonte 2018 bi dem ba ci euh, proclamation résultat yi ya ca dox yëpp yu ñu war a yu ñu war a xool la hmm. kon loolu doon na lu am solo maintenant nag bu ñu nee dañuy dialoguer consensus le président waxoon bu ngeen d'accord lu ngeen d'accord d'accord naa ci ñu xaatim ko donc Euh, waa dialogue bi ñi ku nekk ci kuje gi ñu nekk ci nguur gi ak non aligné yi ñoom ñëpp a d'accord ne na nañu toxal élection yi hmm. donc loolu taxoon ñu toxal ko maintenant ñun nag par principe dañu gëm ne ñun visa les citoyens nañu respecté calendrier électoral bi. Mhm. maintenant li nga bokk ak ñëpp kenn ku ne indi ci xalaatam ñu daal di ne xalaat bi moo ci gën rafet ñu ànd ci ñun ñëpp nañ ci ànd. kon audit bi nañ ko déroulé. Mhm. ni mu waree ba àgg ci lu nga xam ne dana améliorer si ndax saa su ne rek am na lu ñu ci war a yokkaat ba mu gën a baax ndax defoon nañ ko ak ñun ñu ngi koy defaat nañ ko def ba mu ba mu mat ba nga xam ne mhm. incha allahu ñu fi indi ay jeexa jaaxa ci ci ci ci élection Kanté jiite parti Visa les citoyens ñu ngi lay gërëm bu baax